baadu jàngat bi ma ca am mooy lu nu def ci sunna lañ ko teg waxumaa waxumaagul ay nit ñi lu neex nit ñi non seen jigéen duñ jox loxo góor seen jigéen dañuy muuru seen jigéen duñ dajee góor amul lenn loo xam ne alquran wax na ko ti digle wuñ ko amul lenn loo xam ne alquran tere na ko te tere wuñu ko kon li ma xam ci ñoom mooy ak njub ak sell ak dëgër mais mais ku nekk nañ ko bàyyi rek xam nga Ibaadu Rahmaan woote fii ñeneen woote fee ñeneen woote fee nga bëgg dal ci kaw kenn mais mënul nekk nañu bàyyi ibaadu ñu doxal seen doxal man de li ma gis ci alquran jàng ko ci alquran ñi ñuy doxalee noonu la yàlla bëgg niina yudniina alayhinna min na nañuy sollu jot nañuy muur seen awra wala yadribna bi arjulihinna li yaalama maa yox fiina min ziinatihinna gis naa ñu ngi koy doxal doo ci gis mukk ku takk ay fer di ko yëngal ci wet nit ñoo xam ne duñ sa jëkkër gis naa ko ci ñoom donc li ma gis ci ñoom dafa bari te li ma gis yëpp dafa tegee ci sunna waaw nit koo xam ne mu ngi ci sunna mu ngi góorgóorlu mais dañ koy jàppale nañ leen jàppale rek ñu doxal moo gën parce que am na ñu nekkul ci dara am na ñu fi nekkul ci dara te ni ñaa ngi leen jàppale parce que réew mi koo nekkul ci la ne mu mere la koo nekkul ci la mu mere ne mu xas la nit ki da ngay xool est-ce que li mu nekk jaar na yoon walla li mu nekk jaarul yoon nga xool nooy def c'est ça nga xool naka ngay def mais doo ñëw rek Hibaatou Rahmane yi dugg na fii génn fi ñoom daal li yàlla digle li yàlla digle ñu ngi ci li yàlla digle ñu ngi ci loolu moom lu leer la waaw xëy na nag ah réew mi mel noonu waaye garaawul kenn ku ne la nga téye téye ko rek voilà ŋañ ñi moom jullit moom dafa warul loolu moom duma ci d'accord ŋañ ñi jullit dafa warul nit ki nga fekk mu ne ci dara bàyyi ko ca loola surtout muy loo xam ne bonul xaraamul bàyyi ko ci loolu ki nga xam ne mu ngi ci loo xam ne du noonu mais digal ko wa jaadiluhum bi liti ahsan yàlla nee na na nga wax ak moom ci wax bi sax na tegginu waaw na wax bi tegginu yow mënoo wax Serigne Touba wala Alaaji Malik wala Limaamu Laay wala Buu Kunta wala mag ñi ci des ba tax ñi leen topp ba leen manul nekk manoo leen a wax a wax wax ba tax ñu baleen foofu moom duma ci farak ñoom nit dafa maandu su fekkee ne yow dañ ne leen euh, sëriñ sàngam nàngam mais maandul ci loolu moo gën mais dal ci seen kaw ŋàññi leen wax leen lu ñu ne wax ti ñoom ci seen bopp duñ dal ci sa kaw duñu la du ñu la wax lu ñaaw mais waroo leen wax lu ñaaw ah waroo leen wax lu ñaaw kooku moom d'accorduma ci man li ma d'accord rek mooy nañu demee ñun ñëpp sago nañu demee ñun ñëpp sago nañu demee ñun ñëpp xel parce que sago dafa baax xel dafa baax mais ñëw rek dugg ci dara coow fii day indi ay polémique rek murid yi dal sa kaw tijaan yi dal sa kaw xaadir dal sa kaw ñeneen dal sa kaw nga dal seen kaw ngeen nekk fii dalante du ngeen di demee du ngeen dem du ngeen dem du dem kon ku nekk na téye la mu yor malik radiallahu anhu nee na dëgg gu leer ku la ne am naa ko day fen ku la ne am naa dëgg day fen nañ xaar ba yowmal xiyaam ku yàlla joxoñ ne la am nga dëgg nga xam ne am nga dëgg ku yàlla joxoñ ne amoo dëgg nga xam ne amoo dëgg mais lii mooy yoon mais nekk fii ci àdduna di bàkkoo ko manifesté woo ko la ilaha illallah jaru ko jëlal téel li nga yor bàyyi keneen téel li mu yor ñu sàmmoonteeg loi su ëllëgee nag buñ dajeeg yàlla luñ gis loolu rek la yàlla moom lu mu àtti la lu mu àtti noonu la euh, saaga dafa bokkul ci nit ku yiw saaga bokkul ci nit ku yiw ak ku ko jar kan moo la jaral nga par parloo ba saaga bokku ci yiw yow daal loo boo waxee li nga wax xel nangu na ko baax na xel nanguwu ko dàq nañ ko nga sénégalais dañu am rëy danga ngay ci dara mu wóor la ni lii du dëgg nga war a wax ni lii du dëgg nga sax ca mais loolu du àdduna àdduna da ngay seet li nga xam ne moo tegee ci yoon nga tegee ci loola li tegewul ci yoon nga génn ci lool bi ci des eh, nekk fi naan euh, du ma wax su ma waxee dañ may saagaak mais ku la saaga lu mu lay jëriñ lan la laa jëriñ mais mais dafa yokk sa yiw wàññi ay yiwam moom bu la ku mën a saaga ndey baa mu saaga la baay baa mu saaga la lum mën a doon am yaa ngi yiwam jeex na bi ci des système pour seen dundu neex da ngeen di mel ni man man du ma déglu dara soo ma doon saaga feeg yow mal xeyam te bis boo ma ko dégtalee ma bala bés boo ma ko dégtalee ma bala du déglu ba du ma déglu parce que ki nga xam ni dafa am jot di saaga di wax lu ñaaw di wax lu bon di dàgg sant mais diine amul dàgg diini amul weerante diini wéral la am amu ko waaye ku ne génn fee kee génn fee te kat kaay ku ci sa baay amoon problème doo ca taxaw ku ci sa yaay amoon problème doo ci taxaw ki nga topp di ko xulóol ki nga topp di ko xeexal ki nga topp di ko coowal mais du sa baay du sa baay te amalu la njëriñ yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax ne riddallah fi riddal walidayni wa laa fi suxtil walidayni su la se ñaari way jur gërëmi am nga ngërëmu yàlla suñu la meree yàlla jéppi na la waaw li yonent bi wax leer na naññ bàyyi fi ñi bàyyil fële ñële te nga jéem a am sa ngërëmu waajur mais xale yi xoolal xale yi ni euh, boo leen di xool sax da leen di yërëm da leen di yërëm xamuñu fu ñu jëm xamuñu fu ñuy teg seen tànk parce que coow li dafa bëri soo àndee kii bu subaam kale dal ci kaw nga ànd kële kële dal ci kaw mënuñoo jël benn yoon rek ñu jaar ci ñun ñëpp mu yoonu njub dañ ci jaar mais saaga fii polémique fii weerante fii def ko jaar jaru ko jaru ko laa la wax jaru ko kenn man de kenn jaralu ma saaga kenn jaralu ma rey ni mukk ci àdduna dinaa la rey <laughs> wax nga baat bu garaaw wax nga baat bu garaaw dinaa jógee fi ma ne ñëw fi nga ne rey la da defe ne caaq da ngaa defe ne wax nga euh, wax nga lu garaaw wax nga lu garaaw te da nga da nga yëg ne wax nga lu garaaw parce que jël nañu la jël sa numéro jël lépp mais pour lan pour lan nga saaga ndey nit saaga ko maam saaga ko bàjjen ci ay masala yoo xam ne li muy wax dëgg la ah, yow foo ko teg yow diine diine diine xale bi gën tuuti sañ na cee wax diine xale bi gën a tuuti ti nekk julit sañ na cee wax waxuma laa ko ko dul jullit bu dee nag tariixa ña moom ñooy cay wax ñoo ci am sañ-sañ su dee diine ñun ñëpp ci am sañ-sañ kenn ku ne sañ am nga sañ-sañ wax ci diini man de sama bakkin bii ti dara duma dal dara dara duma dal ay ay ay ay rek waaye suma bakkin bii su ma ko joxul diine duma ko jox keneen diine rek diine rek waaye saaga fii polémique fii wàññi fii loolu loolu jaru ko jaru ko xam <laughs> Euh, sëñ bi duñ ko def xam nga lu tax duñ ko def abadan xanaa gëstu pour fu ñu ŋàññ waaye gëstu dëgg dëgg dëgg ngir yàlla rek duñ ko def am na ñu koy def xëy na mais ñi ci des duñ ko def xam nga luy dëgg dooga doo doog doog juddoo fa nga fa nga daanu nga juddoo fa mais du noonu fa nga daanu juddoowoo fa kon nag ki nga xam ne dafa dafa def lu baax di daj lu baax lu ne mu daj ko ci àdduna su fekkee ne dangeen ko koo bëgg a dimbale bëgg a dimbale seen bopp su ngeen ne boo jàpp ci loolu lii mënu fee dañ gis nga lii ci tuuba su ñee boo bàyyi ko noonu rek du fa jog abadan la ca Tiwaawoon du fa jóg abadan la ca Njaasaan du fa jóg abadan dañuy sonn rek kon donc nañ nañ nañ defar soow mi rek eh, jaay ko ci marché bi ah man de laa ci xam su leen naqaree loolu laa ci xam su leen neexee loolu laa ci xam su ngeen ko nangoo loolu laa ci xam su ngeen ko lànkee seen affaire la seen affaire la ah oui voilà kilifay diine yi maandu nañ ci yéen bañ nañ ko ba sax seen événement bu ngeen ca demee ñu teeru leen teral leen ngeen dellu itam waaye yi itam ñoom it la ñu nekk bàyyi bàyyi leen ko moo gën a rafet moo gën a rafet euh, man daal Sénégal daal coow li moom coo tutututut coow li daal coow li daal coow li daal coow li coow li daal coow li daal coow li daal non non non loolu d'accorduma ci Modou Lo dafa war a dem yow kay boo bëggul a dem bul dem ibaadu yi du bon def defuñu lu bon nekkuñ ci lu bon eh, Modou Lo magum jëmm la mais Modou Lo lu muy topp ak dul topp xam na ko magum jëmm la xam na lu aw yoon ak lu awul yoon nañu bàyyi nit ñi ñu libre nañu bàyyi nit ñi ñu libre kenn ku nekk nga gëm la nga gëm nga ne ca c'est problème mais ay Modou loo waru faa dem daa waroon def fii num koy wàññi defuñu fa lu bon waxuñu fa lu bon ñu nga nekk ci seen lu baax nafa dem su fekkee ne itam yàlla dogal na dem na fa ñoom nañu bëgg a doxalee ak la ñuy waxtaanee nekkul lu jubóog yoon ñu génn nga génn dem sa yoon nga génn dem sa yoon parce que loolu mooy liggéey mais Modou Lo du dara lool du dara ay wax la rek wax ji la ñu war a bàyyi nañu bàyyi wax ji nañu bàyyi wax ji yéen itam ah ayaa bi mbang ah, yéen moom ayaa bi mbang ndax yéen moom wax euh, wax li ma wax yépp li ci li ci garaaw ngeen jël li ci garaaw daal da ngeen fexe ba kenn ku ne dana ko teg mais dara garaawu fi dara garaawu fi man daal bu ma paree yéen dem naa tëddi du ma ko déglu sama yoon nekk ci lire commentaire du ko def mais man awma jot aw ma jot bañu ma ko dama amul jot waaw dama amul jot fi nga yaa ngi ma fekk ma tourné ni ma pare maa ngi leen di tourné yéen maa ngi yëm Tiwaan aw ma jot soo ma xoolee xam ne aw ma jot ah c'est ça mais yéen nu ma leen di def danaa leen xaar waaye danaa leen weer huit heures moins su leen fekkul fi dootuma leen jël huit heures moins waaw moo xam nag moins deux moins dix moins waaye huit heures moins moom na ngeen ko teg nag